mbokk yi nuyu na leen jaajafal na leen bu baax mbokk yi ñuy seetaan ci seen site internet bi nga xam ne moom mooy 28 pro suñu mbokk internet yi seen émission découverte tey fas yéene ñëw fi nga xam ne moom mooy Touba Boborel Touba Boborel nag mbokk yi bokk na ci département bu Mbacké bokk ci commune bu Touba ngi benn ci village yi nga xam ne moom moo nekk ci biir ñu fas yéene fee waxtaan seeg ki nga xam ne moom mooy chef de village bi di El mbay Mbaye Sall nekk conseiller municipal waaye tamit nekk président comité départemental bu Croix-Rouge sénégalaise fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yooyu nga xam ne nii moom la ñu fas yéene moom la ñu tudd léegi mu jëm ci village bu Touba Boborel jëm ci comité départemental bu Croix-Rouge sénégalaise moom en tant que conseiller ak li nga xam ne moom loolu dëkk bi di doxee ñu fas yéene topp léegi ci nga xam ne moom mooy sunu gan seen émission découverte mbokk yi <laughs> jërë ngeen jëf comme ni ma leen ko waxoon rek ñu ngi leen di nuyuwaat di àndaat ak yéen rek ci seen émission découverte waxoon naa leen sànq fi nga xam ne foofu la ñu jëm mooy Touba Boborel maa ngi nag toog ak euh, le chef de village di El mbay Mbaye Sall fas yéene waxtaan ak moom comme ni ma leen waxoon ci li jëm ci li nga xam ne moom mooy village bu Touba Boborel waaye tamit lu jëm ci moom en tant que conseiller municipal waaye tamit li nga xam ne moom moo soxal Croix-Rouge sénégalaise ci li nga xam ne ni moom la nekk di ca yëngu di ca liggéey fas yéene cee ànd ak moom ci waxtaan boo xam ne nii waxtaan bu am solo lay doon mbokk yi xam ngeen ne fii ñu ñëw tey particularité bi ci nekk waaye tamit mbokk yi xam naa ne ci njeextal bi danañu am bés euh, benn waxtaan boo xam ne nii parce que ñu ngi am événement bu mag boo xam ne ñu ngi ko dëgmal mu jëm ci màggalu Boborel bi loolu ci présentation bi xam naa ne euh, sunu gan dina ci wax lu bëri wala boog ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ñu waxtaan ci bés boobu lee maa ngi lay nuyu El Hadj Mbaye sii di ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ñu ngi àndat di la sant bu baax ci ñëw gi nga ñëw fii ci fekk suñu ci Touba Boubouel ñu am ci mbégte bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki lum fonk boo ko ko fonkalee rek ah, mënatu laa fay ndax eh, bis bii nga xam ne mooy jub si di màggal gi tubaab Boubouel màggal goo xam ne ñu ngi koy def ci ndigal la sëñ Gumba Sall mooy ñu di ko dundal ba nëga ni yàlla dogal mu mel ne mi ngi bëgg a agsi nag kon euh, ku ñu ci jàppale rek dañ lay sant bu baax gërëm la siidi euh, sunu gan tey El lañ ko la lay waaye ci parcours am lañ bëggoon mu dikkal na ci tuuti nga présente ñu sa bopp pour ñenn ñi la jotul woon a xam ci sunu site internet ñu mën la cee xam man de maa ngi doon maa ngi tudd Alaaji Mbay Sàll suñu borom dogalit ma nekk chef du village Touba Boboyel dinaa mi ngi bëgg a nekk nag jamono yu yàgg ndax euh, muy village boo xam ne sëñ Abdoulaye moo ko sampoon kon lu xam nga lépp lu sëñ Abdoulaye sampoon kon euh, mel na ne mi ngi bëgg a yàgg te <coughs> ca jamono yooyu ba nëga ni yàlla dogal na mi ci sama loxo yàlla dogal ñuy dem di dem ci jamono yooyu fekk tubaab bu Bawel euh, amutoon village bi muy amal bi ko sëñ Abdoulaye di amal village nag fekk na village bi mu ngi sampe woon ci booba communité wàllu Kayal booba ci la sampe woon ci la ko sëñ Abdoulaye sampe woon waaye sun boobam dogal ñuy dem di dem ba bi sëñ Saaliwu di yokk titre foncier bi titre foncier bi ambale tubaab bu Bawel waaw bi mu ambalee Touba Boubouguel nag ci la ñu xamee ne kon euh, titre foncier mënta tubaab Touba Boubouguel village bay nekk Kayal loolu moo tax village su Touba Boubouguel dem euh, commune commune de Touba Mosquée waaw bañ koy defee it commune de Touba Mosquée wax dëgg yàlla jàppale nañu téye ñu comme village yu yàgg ya euh, xalifa yi nga xam ne ñoo fi jot a nekkit it téye ñu baax a baax a baax a baax ndax xalifu bu fi toog sëñ Gumba moom da nga koo xàmmi xàmmi goo xam ne euh, sa xàmmi ci seen digg sëñ Tuubaa moo tax xalifu bu fi toog jàpp na téye na boobawel boo xam ne kenn ku ne da koy xam ndax euh, tey bi ma nekkee noonu it suñ boobam dogal na maa ngi bokk ci conseil bi kon El Hadj Mbaye Sall la nekk na chef du village wante nekk na it conseil municipal ci commune nu Touba Mosquée te loolu waaw euh, loolu mu doon kon maanaam euh, bi nga yoree Vabreuil chef de village bi nekk ko ci jamono sëñ Abdoulaye ba léegi euh, mais kon bi ñuy def Touba bi ñuy def Vabreuil village bu bokk ci Touba ndax amuloon ay jafe-jafe digganteem bokk gi mu bokk ci Kayel kenn amoon nañ ci lu mu ciy contesté wala amuloon da ñëpp dañ ci maanaam dëkk rek wéy amuloon benn problème daal. am waaw amoon na sëñ Sidi booba amoon na jafe-jafe lool lool ba weesu jafe sax ndax euh, kayel nungu wuñ woon ñu dem ñu dem Touba nungu wuñ ko woon ñu jëfandu ci jëfandu boo xam ne jëfandu bi munu fi raw moo tax bi village bi sampe euh, jamono yooye mel na ne ku doonut sëñ Abdoulaye booba village bi mënutoo koo samp ndax euh, ñi su préfet bi fi nekkoon ànd naag préfet bi fi nekk mu dem ci gouverneur mu dem fu ne ñu yëg ni village su bii du mën a booba sax xëccu wuñu woon dem Touba mhm. wi ama village rek lañ doon xëccu waaye village boobu la mel ne ñoom mënuñu koo nangu mënuñu koo dégg mhm. bi ñu amee ak jaaxle nag euh, ci lañ soog a dem ci sëñ Abdoulaat yëgal ko yëgal ko ne ko ñun kët dañoo bëgg village ci village bi dafa të waaw ci la sëñ Abdoulaat daal di taxaw samp village bi ba village bi am doon village bu am décision muy jafe-jafe booba ñu jàll ko waaye ñu dese nag beneen jafe-jafe muy ñu jóge Kayal ñëw Touba waaw fu waaw waaw ci wàllu village bi jóge Kayal dugg Touba bokk ci Touba na village ba jafe woon mën naa ne village bi dugg Touba it noonu la jafe woon waaye lépp sëriñ Touba bu sëriñ Touba moo ni mu yombalee woon village bi ni lañ dem ba mu yombalee ko bi ba mu xëy xëy dugg Touba sàkkuteef la woon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee Boborel wala sàkkuteef la woon ci ñan. pour ñu toxal maanaam village bi yóbbu ko Touba. waaw ñun ñoo ko njëkk a sàkku ndax xam nga li tax ñu sàkk ko titre foncier bi tiita foncier bi moo ñu ëmb titre xam nga boo titre foncier mi ngi mel ne ne ci dëkk ja dëkk boobu moomu ne fa dëkk ndax titre foncier bi Sëriñ Touba ko moom Sëriñ Touba ko moom kon mënuñu ko fee jéggi nag di di jël village bi di ko yóbbu di fa yóbbu lemp kayal di wàcc fi biir titre foncier bi. da cee daal. da cee dugg ñu ngi ci digg ñu ngi ci digg titre foncier bi waaw. bi ma de kon nit ñi xamul titre foncier Touba fu mu yem. am na lu leen euh, leerul ci mbir moom bañ koy parce que Touba dañu am ko doon yemale. waaw waaye bi fii moom ba moom euh, titre foncier ba baax yi gis ba fan yii sax sëñ sëñ Mountakha laat na ko ba boo jëmee nii ci wetu Saalum gi. lu tolloo kilomètre genn wàll. da nga fa fekk boo na tiita foos yi mu aw noonu jàll nga xam ne du lu ñuy laam-laam le du le leen yoreef bi nag euh, mbax euh, suuf nga yor tamit muy titre foncier boo xam ne ni dafa maanaam village bu nekk ci titre foncé bu am moomeel muy yëfi sëñ bi kon lépp lu waay def tamit ci village bi nga xam ne moom mooy Touba Boberel la daf koy def ci maanaam ndigalub sëñ bi loo xam ne maanaam tamit du dee day jaar ci yow muy occupation terrain wala maanaam jël terrain boo xam ne dëkkee ko ba nu la neexee rek nga ne da koy jaay ci anam bu légalul yooyu yaa ngi dajeeg moom léeg-léeg. Ah, ah du ma ne déet waaye bawi wudde xëy na lu njuum te am ak jaxasoo am de waaye nag wax dëgg yàlla ñun bawi wuñ ay jafe-jafe noonu teewee ndax euh, ku fi am kër ku ne dañ lay defal kayit kayit bi chef de village bi moo koy bind ànd ko ak délégué bi nga xam ne moo nekk ca wet googa waaw du ñàkk nag léeg-léeg ñu dem ba. Euh, ñu dem a dem ba jaxasoo parcelle am waaye su boobaa it ñun dañ koy lijjanti ci sunu biir du du doon lenn benn jafe-jafe daal amuñu ko ci loolu waaw. day saafarawu daal ci ni mu gën a gaawee. day saafarawu ci ni mu gën a gaawee bu soobee incha allah. ñi nga xam ne ñoo doon xëccoo après dañuy déggoo. dañuy déggoo dañuy déggoo ndax ñaar ñi bu ñu tasee ci benn parcelle ñun ci ndimbalal suñu borom ndimbalal Sëñ Tuubaa danañu dimbale ba am ci koo xam ne la ñuy waxanteek moom danañ ci juboo ba duñu am benn jafe-jafe waaw. mais est-ce que yomb na pour nga contrôler village boobu Boubirel parce que am na ay quartiers yu mag yoo xam ne ni tey mën na ne sax maanaam yoo xam ne day dugg ba nga foog ne ci biir Mbàkke la te fekk moomeelu boobu Boubirel la bokk tamit ci Touba yomb na pour nga gérer loolu yëpp yow en tant que chef de village bi. waaw loolu yomb na ndax euh, fi Mbàkke ak euh, Touba euh, fi ñu fi ñu yem fi fi ñu yemoo. fi ñu yemoo ñun ñun ñun xam nañ ko ba duggantewuñ foofu xëy naa Mbàkke nag ci jamono am na jamono fekk nañ ci tooli Touba Boubouguel yoo xam ne Touba Boubouguel moo ko moom mbakke jël ko boole ko ci seen suuf waaw dugguñ ci tiita foose bi naam waaye tool yi nga xam ne Boubouguel ci ma ñoo ko moomoon muy seen tool lu ci ba Mbàkke bi muy bi muy yokk dañ ko yokk boole ko ci Mbàkke waaye suuf si nag ci aada ci cosaan suufas tubaab bu wér la woon waaye nag ñu xëy xëy indi seen i këyit lijjanti ba ne lii ci mbàkke la bokk. nu ngeen def ak loolu yéen. ah loolu de moom xam naa. fu mujjee delloowaat na leen ko wala ma nga des ci mbàkke ba léegi. ba tey mbàkke mi ngi ko téye ba tey mbàkke mi ngi téye suufas bu wér. gëstu nga ko ba xam ne lu leer ñu tex ñu téye ko wala. waaw ah, gëstu naa ko de ndax uh, booba mbaw moo fi ne ak i bëgg ñu wax ne kadaas kadaas moo leen ko moo leen ko jox. bi ñuy lijjanti suuf si nag xam nga ñëwuñ tàgguñu laajuñu dañoo dem ca kaw ak lijjanti lijjanti ba ne karaas lii ci Mbàkke la bokk. waaw euh, sunu gan El Hadj Mbaye Sall chef de village Touba mais moomeel suuf gère suuf souvent dafa indi maanaam indi na ay problème ba tàyyi pour loolu jeex tàkk yéen parce que daje woon ngeen fi lu yàggul dara mbii ñaareel bu daje sax ak euh, xalif général mu am ay orientation yu leen jox. mu jëm ci maanaam ñi ngeen di gérer suuf si ndaje yooyu noonu lan la jur tey. ndaje yi baax na am na njëriñ lool ndax ñun chef de village yi dañoo jàjj jàjj goo xam ne dañuy bëgg kenn ku ne la muy def mu di ko seetlu bu baax ba coowal suuf mën a mën a wàññeeku ndax sëñ bi dafa bëggut ci dëkkam bi euh, jamono yu ne coowal suuf di am sëñ bii da ko bëggut moo taxoon sëñ Bas nag nga xam ne moom la fa yebal mu mu teewal ko fa. mu bëgg mu wax ak ñun ci ñuy teey ci mbirum parcelles yi ba kenn ba yenn coow coow yi suuf yi daal gën a wàññeeku ndax moom daa yëg na ne eh, boo demee fu mel ni ay tilbinaar toujours coow suuf dafay faral di am loolu nag moo tax mu jàjju ci kàddoom ne yéen chef de village yi ngeen di teeylonte eh, mbiram suuf si ndax chef de village yi eh, ku jab yaa dëgg la am na ci ñoo xam ne coow topp na leen waaye coow li ku jiitu ku jiitu lu yaatu noo mën a def lu ne am ca ndax dangay ngay ami délégué kaay ci am lu ne am lu ne kon léeg-léeg ñu am benn parcelle boo xam ne du ñàkk ñaari ni daj dajee ca buñ ca dajee nag bu ci amee ku amul sago ku amul sago moo ko fa fay weesole ba di ko yóbbu foo xam ne bu teeyoon ni mën naa ñàkk mën naa ñàkk ndax chef du village bi moom lépp lu tegu ci loxoom buñ ko teeyaloo dana ko dana ko teqantal ba teg ko ci aw yoon waaw. jërëjëf kon foofu leer na léegi euh, ñu ñëw ci bobureel bu démb ak bu tey maanaam boo ma doon waxal ci réalisation nga dikkal ma ci démbul bi ngay soog a jot chef euh, village bi li nga fi fekkoon ak fi nga ko yóbbu tey ak ñi nga xam ne maanaam jëflante na yow mën naa tudd ci kilifa yi xalif yi comme yu demee ni ki ñi fi nekkoon xalif général yëpp des mourides waaw ñi fi nekk xalifa général de Mouride xalifa ñu ngi ko tàmbalee woon ci sëñ Abdoulaat wax naa ne la village bi sëñ moo ko moo ko samp waaw bi mu koy samp sax ah wax dëgg yàlla euh, bëgg bëgg bëggal ak xam diggante sëñ Gumba Sall ak sëriñ Touba tax na kilifa gi fi nekkoon booba mu woo ko di ko sant village bi te moom euh, bañ gi mu bañoon ëpp ba xam naa ne moom daanaka ngéew village bi taxaw jagal mu mel na ne mënatu ko woon te mënta ñàkk ndax sëñ Abdoulaye sant na ko ko lam ko njëkk wax mooy gouvernement bi da koo teewe sëñ mu ne ko loolu sa yoon nekku ci def ci li nga man la ci des nga bàkkoog man waaye bi ko sëñ bi Abdoulaye waxee loolu it sëñ bi moom moo gën a xam kuy nangoo ku dut bañ ku ak ku bañ xam na ne kii lim ko wax na nagu koo def mu ne ko xam nga lu ma lay xamal gis nga ñooñi ko leen joggi ma nappaaje la ñun ñoo tax sëñ Abdoulaye wax loolu ku leen joggi ma nappaaje la kon kon euh, kon ku xam na ne sëñ bi sëñ Abdoulaye am na ñu jàppee waaw loolu moom doy na doy na ci sëkk ab tegtal ci diggante sëñ abdulaat ak sëñ Gumba Sall ndax village bi ñun booba village bi am jaagal nañu lu ne te mel na ne mënatuñ ko woon am ti bi mu àggee ci sëñ Abdoulaye am nañ ko ba ministère de l'intérieur signé décision bi muy ci jamono jamono Modou Fall mu signé décision bi ñu am village boo xam ne euh, bari na ñu doon wax village sax te fekk na jotuñu woon àgg foofa waaye ñun tun village dem na ba ministère de l'intérieur signé ko kon loolu léegi bala ngay ñëw ci réalisation yi mën na mën nga ma indil kon ci jamonoy sëñ Abdoulaat ba ci sëñ Muntaxa mii fi tey euh, diggante boobu noonu ku fi dikk rek dana am loo xam ne maanaam dina ko yokk ci village bi wala ku fi dikk rek kóllëre gi fi fekkoon moom lay wëyal loolu laa bëgg nga net di dikkal ma ci tuuti. mooy mooy wéy kóllëre gi fi sëñ Abdoulaye defoon ba fii mu nekk nii ba ci sëñ Mountakha mooy wéy ndax euh, sëñ Abdou Khadir moom benn tool lañ ko fi jot a yot wax dëgg alhamdulilah toogaay bi jotut a yàggee noona neex na waaye jotut a yàgg ba ba nga xam ne waaye jàpp gu ñuy jàpp gu ñuy jàpp bu sëñ Abdou Khadir jàppee woon na ko boobu waaw ba ilimaan ilimaan jii fi nekk di sëriñ maam Diop sax sëñ Abdou Khadir moo ne ko boobu dee leen jiit muy ilimaan jii ñu jiital tey muy jiite jumaa ji sëriñ Abdou Khadir moo ne ko del jiite boobu kon euh, kon xam ni xam nit ak fonk nit mënta weesu mënta weesu loolu bi sëñ wu tooge bi nga xam ne sëñ wu ñëw na sëñ Saaliwu moom li fi def mu ni toog sax di ko lim al ne su mën def ñu wax ci tuuti ayub kii ak waaye mënu su koo lim ndax ndox mi ñuy naan nii moo xëy xëy xëy euh, taxawal ne boobawel nañ fa yóbbu ndox te ndox ma fa yóbbu duma ko def loo kenn sama xaalisa bopp laa koy def mën naa koo def loo communautaire mën naa ko waaye sama xaalis bopp laa koy def moo jëndi téewoom fa yeggas ka tam def lépp ba ndox mi ñëw boobawel te fekk boobawel ñàkk na ndox lool sëñ saaliwu moo def loolu sëñ saaliwu sama mag alaaji Ibrahima Sall moo ko moo yónnee mu ñëw mu jox ko biyee màkk mu dem màkk man mii di mbay sàll sëñ saaliwu moo ma ma dem mu boole maag sëñ Modou Gueye ñu jox ma biyee màkk ma dem màkk ñun ñaar ñëpp ci dëkk bi sëñ saaliwu moo ñu moo ñu moo dëkk bii bi ko sëñ wu natt suuf si mi ngi ci biir Territoire forcé moom moom moom suufam waaye Modou Fall naay dégg nii di ma dégg dafa ne ko demal Boboguel ci chef de village ba ne ko euh, demal dama koy bëgg a nattal dëkk ba nga dem wax ko ko Modou Fall naay de mu ne ma yéende sëñ bi li ma wax ci yéende lu liggéey bu liggéey loo ma ko waaye li ma wax ci yéende waxuma ko ci kenn ndax nee na naa ñëw ci yow yëgal la ne daa bëgg natt dëkk bi mu ne ko loolu bu fekkoon jombe day am mu ne jomb nañu moom moom suufam moom ñu mënoon leen seen ci àll bi ngeen di natt rek mu ne mu naan demal moom nga ne ko damay bëgg a natt dëkk bi loolu day wax kawe na ci man lool xam kon loolu ab ci jéegu yi la bokk sëñ saaliwu mu sëñ yebal na sëñ mew na jaxate sëñ mew na jaxate mu dawal wataam ba ñëw woo ma ba ma ñëw mu ne ma sëñ saaliwu ma yónni ci yow ma ne ko waaw mu ne waaw mu ne ma nee na nga téye dëkk bi nee na nga téye dëkk bi waaw kon loolu loolu daaw féetewu ko kaw ku toll ni sëñ mew nu te sëñ mew nu it taali bi nga toll noona ne booba kay bu doon jamono mënoon na maa woo téléphone ne ma sëñ Saliou de yónni na ma ci yow nee na nga tëye dëkk bi waaye li ko ko sëñ Saliou wax moo tax dafa taal wataam ba ñëw sama buntu kë taxaw wax ma ko wàññee ko wàññee ko dellu waaw kon xam nga sëñ Mewnu ak taalibeem nit mënu ko mun mënta wax nu mu toll loolu la tax na sëñ Mewnu am na màggal ak sëñ Abdou Lahad goo xam ne ba ma demee sa yaaga ko ba noppi daf ne ma yow de sëñ Mbay toogal ci sama wet ma toog ci wetam ku ñëw boo si siyaaree ba tàllal loxo mu ne ma mbay mbay ñaanal ko mbay ñaanal ko ku toll ni sëñ méew nu ah kon xam nga loolu moom moo moom moom it moom xamu xamewu ma noona waaye saali wu ma ko yónni ca man mat go loole moom la ma moom la ma téye ba tax mu naan mbay ñaanal mbay ñaanal ko waaw ndax xam naa ne sëñ saaliwoo tax mu def ko waaye xëy na du man waaye sëñ saaliwu yónnin ba mu ko yónni loola moo ne ci xelam sëñ méw nu woon na ma jax bis ba ma dem mu ne ma xam nga lu ma lay doyee mu ne mu ne ma dama lay sant dong mu nag ndax coow lu ne day jóge fu ne di ñëw ci man waaye foofa dëkk ba yëg naa ne téye nga ko ndax benn coow mosu faa jóge ñëw ci man dama la koy sante ak gërëmee la ko waaw kon xam nga lu loolu ab jéego la gis nga jumaa gis nga gis nga jumaa ji sëñ Saaliw moo jox moo jox oo xam nga sama làmmiñ sax mënta kii uus uus daal mu jox ko sëñ Ceerno buus ne ko joxal ma ko waa Boubouel mu jox ñu ko mu ne ci ay mbuus ma waxtaan ak sama mag yu bàyyi ma ne ko sëñ Saaliw de yi ñu jox lii mu ne ma loo ci xalaat mu ne xanaa ñu tabax ci jàkk ji mu ne ma jeex na bul ci teg leneen ñu di dem jël lam ñu joxoon ñu jaay ko Tamsir Caam ba mu ko jëndee ñu ne dañ koy tabaxee jàkka tabax jàkka booba jàkka lañ wax de waaye ñu ne nag gannaaw dafa suñ Saaliwu dafa ñu ko joxoon te xamuñ lu mu ci mu nañ dem tàgg ko ñu wax ko sëñ Thierno Bousso mu dem ne ko waa boobu de loole nga leen joxoon daf ne dañ ne dañ ne dañ ko bëgg tabaxee juma mu ne déedéet nañ ko def dañ koo tabax jàkka mu ne déedéet nañ def juma nañ nañ def juma daal di ne ko bu àll ba danaa fa yebal sëñ Moustapha Bousso mu dem nattal leen ko ñu def ko jumaa kon mooy jumaa ji te ñun booba sunum xel wax dëgg yàlla demutoon ci jumaa waaw jàkka waaye bi ñu demee di ko tàggu jàkka moo moo tax mu ne nañ def jumaa daal di ñuy wutal si yebal fi sëñ Moustapha Bousso mu ñëw natt ko ne seen yaxab jumaa ngi noonu jumaa jaa ngi nii loolu sëñ Saliou moo ñu moo ñu moo ñu ko defal. am na solo kon maanaam daal parce que sëñ Saliou moom ku ci wax moom. mënta euh, mun mënta jeex moom. de waaw parce que benn émission parce que euh, da nga ñëw tamit waaw waaw waaw mm-hmm. waaw léegi euh, village bi gis nañ fi case de santé ba mu dem case de santé bi am lu mu jur tey ñu gis fii. mu am ci wàllu électrification tamit boo xam ne ni macha allah yàggul dara tamit dégg nañ fi tamit li nga xam ne moom mooy château d'eau boo xam ne ni maanaam tamit ci maanaam ay partenaires yoo xam ne ñoo ko eh, loolu noonu noo ko lijjantee ba mu ñëw ci dëkk bi. loolu day moom xanaa ka loolu lépp ñu ngi ko lijjantee ci dara jee ki fi tëdd muy sëñ Gumba Sall ndax euh, ba mu demee ci sëriñ Touba muy màggal gi ñuy waaj a def oh, mu mu ñaanal ko. mu ñëw toog si bëba bëbëgal taalibe yi uh, topp ko ñaanam googee day mooy law ci mooy law ci dëkk bi ba tax xéewal gu di fi xéewal gu di fi wàcc si ndax loo ci dox mu mel na lu yomb la ndax xam nga li nga wax COASAWUS bu Turquie ànd nañu wawus bu senegal ñu ñëw gas fi fii ñu bënd ko fi ba ndox mi génn na jotaguñoo tàmbali naan ndax équipement bi ak moo des euh, danañu dimbali ci wàllu ndox ba nga xam ne xëy na ba bañ mën a amaat beneen studio bu mag buy doxal dëkk bi ndax euh, bii mënuñoo mënuñoo àttan waaye ndimbal la lu mag a mag a mag a mag loo xam ne wax dëgg am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax ci COWAS COWAS bu Sénégal ak COWAS bu TIC ak comité de COAOS bu départementalu Mbacké. bala ñu ñëw ci COAOS bi bi euh, maanaam ci waaw cas de santé bi moom itam bi ma gisee dëkk bi yokku ba nga xam ne faj fajukaay bi métti na ci laa waxtaan ak euh, docteur Dieng docteur Dieng ne ko ñun dañoo bëggoon case de santé mu ne waaw mu ne waxtaan leen ci ak it sous booba su préfet faal faal moo fi ne ñu waxtaan ci ci pour ñu am carte de santé do ñu yàlla def ñoom ñëpp ñu nangol ñu nangol ñu ko ñu nangol ñu ko autorisé ñu def carte de santé carte de santé bi nag ma ànd ak waa dëkk bi ñu tabax ko biñ ko tabaxee ñu commencé di fi faj euh, bi Touba ci kanam ñëwee nag nga faaw ñu waxtaan ak docteur Dieng ñi nga xam ne ñoo gën a yelloo carte de santé waaw xam nga comme docteur Dieng moom fii xam na ko ba ba samp fi carte de santé ñuy te gis na résultat yi muy faj kon moom mu daal di xam ne boobëgal kat yàlla woon na poste santé mu waxtaan ci ak abi bu Mbàkke mi nga xam ne moo ko jiite yàlla dogal ñoom ñëpp ñu ànd ci juboo ci ñu def ñu def fi carte de santé ndax fii ak Lansar ak Kër Gol ñetti post yooyu la tub la Touba ca kanam njëkk a taxawal mu mu nekk mu nekk nii te loolu lépp gannaaw yàlla nag carte de santé bi moo bi fi sampee woon moo tax euh, docteur jee man koo xam ba man fee ñëw waaw am na solo trop mbokk yi sunu gan élage euh, mbay Mbaye Sall chef de village Touba Boborel waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moom nga jiite ci maanaam beneen wàll te mu xaw a méngóog li ngi jëm ci wàllu doctor muy Croix-Rouge sénégalaise yaa jiite comité départemental bi euh, bii mooy sa ñaateel bu mandat El Hadj. bii mooy sama juróomeelu mandat. lan moo waral mandat bu yàgg boobu noonu. ah xanaa nit ñi nit ñi ñoom ñoom la yàlla def ñu sopp ma bëgg ma rek ah ci ba saa su ñuy renouvelé am benn jafe ndax ndax du benn jafe ndax cent pour lañ may wateel waaw xam naa moom eh, jëmbut danaa mas a àgg fu ma baxee su boobaa xam ndax nit ñi moom suñ borom a def ñu téye ma téye boo xam ne mbiram suñ borom la ak mbiram Sëriñ Tuubaa waaye loolu amul ci Sénégal amul Sénégal. yàgg noonu ci Croix-Rouge Sénégal. déedéet amut amul amul Sénégal. waaw lu am solo la mais eh, lu tax seen comité régional ba léegi nii taxawagut. waaw comité régional bi day ah moom li ko tee taxaw ndax Mbacké ak Bambey ñetti département la ñaari département yi bambe ak Mbacké ànd nañ cent pour cent kenn ku ci ku ciy fequ naan àndut ci ma jiitu. Mbàkke amul kenn ku ciy féqu ne àndut ci ma jiitu li ma ta xam ñaari département buñ àndee benn tee benn tee région ba taxaw ku ne xam ne loolu moom doy na xam-xam ndax ñetti département la ñaar yi ànd nañ kon bu fekkoon département yi wote am nañ ma sorité ba pare ah kon am nañ ma sorité ba pare ndax ñett bu ñuy xëccoo ñaari ñi ànd loolu doy na danañ ci gën a yaatal ci croix rouge bi nga xam ne moom nga jiite ndax suñu euh, technique euh, réalisateur mi ngi ma naan li ma dese new na euh, fan yii rek incha allah rabbi la ñuy amal màggal gi nga xam ne moom mooy muy amal fii at mu muy màggal maam Goumba Sall wàccaay bi laa bëggoon ngeen dikkal ma ci bu ko defee ñu mën koo jeexalaale émission bi ndax ñu may xamal ne maanaam waxtu yi ci des bëreetul. waaw waajtaay moom taxaw nañ ci teem mu fi mu nekk nii ndax waajtaay ndax bala ñuy màggal nag dañuy dem ba ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ñu tàgg ko ba mu jox ñu ndigal lu ñuy def ñu soog koo def waaw ca jamono sëñ Abdoulaye ba nëgë ni buñ koy ku fi nekk rek bu ñuy màggal allah kulli aal ñu dem tàggu la ba nga jox ñu noo ñu joxee ndigal ak ñu defee noonu ndigal li ren jii dem nañ ci uh, sëñ Mountakha ba tàggu ko mu ne waaw da jàng alxuraan ak bernde ti ndigal li ngeen sax ndigal li digle na digal nañu ko bu baax a baax ñu ñu ñu sàmmonteeg moom waaw waaw waaw loolu moom sëñ bi neen na ngeen ko na ngeen ko fonk. waaye dañuy màggal daal comme ni ngeen ko daan màggalee at yële lu weesu wala euh, dans ci sobriété maanaam ci ni ko mën a waxee ci lu ak dal. waaw ñun sunu màggal euh, sëñ bi noonu la ko xamee ndax xam na ne ñun bu bu bu jant bi soo rek fekk daanaka da ngay mu mel na kenn nekku fi woon ci bëccëg bi la ñuy dajee jàng xasaa yi alxuraan yi jàng xasaa yi it luñ mën ci ber na ñu def ko. daal di uh, daje waxtaan ñaanante ku ne yawee ko loolu noonu lañ koy noonu lañ koy def waaw waaw ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy woo ñëpp uh, bis la boo xam ne ku fi ñëw moo gën nga bañ fee ñëw ndax uh, bis bi nga xam ne moom la sëriñ Gumba la fekke woon sëriñ Tuubaa ci yéen fekk ko fa mu ñaanal ko mu ñaa mu ñaanal ko fa mu ñaanal ko fa lam ko ñaanal mu ñëw mu ñëw taalibe yi topp ko ba ba mu am li mu am bis boobee mu fekke woon sëriñ Tuubaa ci yéen bis boobee moom la ñuy màggal waaw mu yem ak ñaari fan ci tamxarit sëñ Sidi nga bi ngay ñëw fii fekk nga fi Dame Diop mu bokk ci ñi may jàppale ci dëkk bi di sama lépp euh, kee di Saliou Diop bokk ci délégué quartier yi kee di Khadim Sall nekk euh, nekk membre croix nekk sëfo Croix-Rouge mbokk yi xam naa ne dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, njeextalu émission bi rek parce que nee nañ ma jeex na tàkk euh, sunu réalisateur wax na ma ko mu ngi noonu mu ma koy signalé mbokk yi rek dig daje ci beneen jotaay incha allah rabbi bésu màggal ga daan def suñu kéem kàttan ñëw teew fii àggale ko ci li nga xam ne moom lañ fi joto a tàmbalee incha allah rabbi ak seen site 28 pro dig daje ci yeneen jotaay.